mbokk yi 21 jot na fii ci seen studio El si Sidy ñas ci solution TV ñu sant leen gërëm leen seen émission bi nga xam ni moo di gindi dellu seeti ñu ànd ceeg Serigne Abdoul Aziz Diaw ñu waxtaanee lépp loo xam dafa jëm ci wàllum xam-xam wax nañ leen ko waxati leen ko muy koo xam ni bañ ko xamee ba léegi ca la mu nekk ma nga ca moom lii gaa ñu indi muy jub jubal jubbanti. Mm-hmm. Euh, dafa fekk baax ci li mu nekk. loolu moo sabab euh, at yu yàgg yàgg ñuy ànd ak moom te amuñu benn yoon. ak rëccu ci ànd gi ñu ànd ak moom ndax nag lay des fois ànd dafa am solo ndax booy ànd da ngay ànd ak kuy defar sa image loolu dafa am solo te moom mi ngi defar image yi vraiment ci li nga xam ne ci la nekk muy liggéey bi Baye Assane Mesere nelawkat lañ ci àndal heure bi fu jotee nelaw daf koy yomb lool xam naa dara du nelaw bëccëg tey nag ñëw na def njaxasu euh, boo xam daal bàyyi laa tam diir mbagg sëñ Abdou Aziz Diaw waaye su sëñ Abdou nuyoo dina xam ne sëñ Abdou mënoo koo diir mbagg ba tey tey moom dañ laa yëkkati ba ca kaw dóor ci suuf <laughs> boo ñu nappaaje kay looy daw taalal sa micro. ayca Baye Assane Mesere. jërëjëf soxna bu ñoo ngi lay siyaare bu baax a baax a baax. Hmm. di siyaare Abdoulaye jàll mu nekk si xarale gi. Hmm. di siyaare bu baax Abdou Tabak Modou Diouf. Hmm. waaye di ko siyaare bu baax a baax a baax muy sëriñ Abdoul asis Diaw. macha allah ñu ngi koy ñaanal ndam. ak tawféex ak ay xéewal. émission bi léeg-léeg dafa am ñu koy seetaan pare woowaat la naan mu jox la jox ma numéro Serigne Abdou Aziz Diaw ndax seetaanaa émission bi mais su boobaa nañuy bàyyi xel si suuf rek numéro bi moom leer na nañ bu ñu xoolee ku seetaan émission bi rek bu xoolee na gis numéro bi yaakaar naa li mu fiy jóge si ban écran bëriwul ñu ngi siyaar nag baax Serigne Abdoulahi Ndiaye moom Serigne Jim Ndiaye borom Kaymoor ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér Ah, sa sunu borom yokk ko bu baax a baax a baax waaye ñu ngi gërëm ñi nga xamante ni bu émission bi tàmbalee dañuy ànd ak ñu topp ñu ànd ak ñun seetaan ko ba mu jeex tàkk ñu leen di gërëm képp ku nara ñëw si sëriñ Abdou daal te boo ñëwee li nga bëgg doo ko am yal na bu la yàlla indi uh-huh. képp nag koo xamante boo ñëwee sunu borom dana saafara say mbir foo mën a nekk yal na yàlla nit la indil la sëriñ Abdou Aziz Diaw te résultat en cent pour cent si carte nag sunu borom moom lay am uh-huh. ndax koo xamante ni nit day ñëw ci yow uh-huh. dénk la boppam jox la ni la ñaanal ma yow it ngay ñaan ba nga xamante ni lott nga ci lii nga woo sa waajur ni ko defal ma dog yii defal ma lii ma boole ko jox ko kii loolu lu rëy la day dogu la mhm. kon ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax jërëjëf jërëjëf Assane Mesere am na solo te ni mu ko waxee noonu la amee euh, moom lu mën a xew daal fekk fa way juróom rek gàllaaj la mhm. te way juróom moom dafa am yéene ci yëf yi mhm. beneen bét mooy mu wéeru moom tamit ci ñoo xam ni dañoo nekk ay kilifa ci kurus tabarakallah waroon naa toog rek jàpp njàmbaram mm-hmm. waaye fu mu dégg ni màgg nga fa yor na kurus wala am na lu mu xam mu daw ci moom sof mm-hmm. toog ci suufam laaj ko nan la mën a def bay jaam ñi gën a mm-hmm. dégg naa waajur yëpp gën a aay de waaye da ko ngéem ni ko doxalal <laughs> suñu yaay waaw alhamdulilah amee benn dossier bu kii naan ko yaay dossier bi rek leen moom Ah, maa ngi lay diglu waaw waaw. Ah, nag yow loo xam doo ma ko wax. Ah, de moo tax man ma ne ma saa ma ne ma lu mu xat-xat naa ne ko defal ñaan. ah gisoo mais lu naan wax si Ousmane Sonko. waaw <laughs> waaw mi nekk Yoff Ousmane Sonko booba Ousmane Sonko dara jotagu ko. waaw ma bëgg ci moom mm. ma ne ko ah jàpp nañ doom ji léegi nag gi na mu ne ma jeexagul de li ma bëgg dana am de. <laughs> toog si deram kon de nañ demaat Kaolack. <laughs> mbëggeel moo for rek. waaw macha allah mbëggeel moo for rek. Serigne Abdou kon ñu bàyyi la ngeen yoog biir ak biti réew. alhamdulilah rabbil alamin wal xaaqibatu lil muttaqin wala xudwaana illa ala zalimin wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam amma baaxdu ginnaaw ba ñu sante yàlla julli si yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu doomi sénégalais yi fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew noonu la nuyoon nuyoo nag jiital si nuyoo bi ki yàlla jiital si barab bi muy alaaji Sanjoogu Mbeng borom réalisation yu mag yi di ko ñaanal yàlla te ko loxo mhmm. noonu la ñu nuyee bu baax directeur solution TV Serigne Sohibou Diop di la jox sa wàcc waaye di la ñaanal yàlla defal la tawfiq ak taysiir noonu la ñu nuyoo bu baax alaaji Salis El Ahdaay alaaji Assane di la jox sa wàcc waaye di la ñaanal yàlla mm-hmm. noonu la ñu nuyoo nag bu baax suñu kilifa diine yi mm-hmm. di lay jotalee nuyu xalifa Cheikh Mouhamad Lamine Jim Sey tey dafa amoon programme invité taalibe yëpp xadratul jumaa macha sa xadra ba lañ jógee guddi gi nii dafa am benn daayira bu mu a def ba ay ba ñëw pare xaddara bi rek ñëw fii def émission gindi kon ñu ngi leen si ndokkeel mu ngi leen nuyu di leen ziar. xanaa bu ñu fi jógee tamit dañoo war a dem continuer day def daayira foofu ba ay 3 heures du matin fii si géejiwaay mm. di am di si yéen bu baax. tabaarakallah loolu la ñu nuyoo nag bu baax kilifa aada yi di jiital ki yàlla jiital si bopp réew mi muy soxna excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye di ko ñaanal yàlla defal ko tawfiq ak taysiir. amiin noonu la ñu bu baax nag premier ministre am Alaaji Ousmane Sonko ñàkk Mm-hmm. muy falu tey fale di ko ñaanal yàlla fal gi gën a jëm kanam loolu mm-hmm. la ñu nee nag bépp personnel boo xam ne yaa ngi liggéeyal Sénégal moo xam mm-hmm. yaa ngi si gouvernement bi wala nekkoo si gouvernement bi ne la Sénégal tax a jug rek ñu ngi lay nuyu di la ñaanal yàlla defal la tawfiix réussir total daal yal na ko yàlla def si projet yëpp amiin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nuyu baa ngoog Diop amiin waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu tey nag dinañ waxtaanee Assane li nga xam ne mooy euh, daal euh, bay rab làmmiñ dinañ ci ñëw bayerab làmmiñ bayere mm-hmm. ah bayerab làmmiñ bayerab làmmiñ dinañ ci ñëw mm-hmm. dinañ ñëw it ci ginaaru pettaaw mm-hmm. ginaaru pettaaw daanaa ko dégg lan mooy ginaaru pettaaw ak lu ci bëgg a waxtaane ak kàttan gi nga xam ni fa laaw yow ak Abdou Top soxlawu leen ko ndax nee ngeen yéen mbiri moom euh, amu leen ci kii ñu waxtaane it tamit li nga xam ne mooy dëgg ak fen daañu ko waxtaane waaw looy dooree sëriñ Abdul Aziz Diaw mi wax ak yow nii ndax ku woote commande si jaaro yi dina si mën a jot ndax it ñi nga daan ñaanal maanaam si wàllum seet ñaari nit yi ngay jël ba léegi ndax euh, lii nga xamante ni mooy yaakaar naa seet jaaro bi mhm. voilà mhm. ak lavage bi nga daan lavage loolu ndax mi ngi jàppandi waa alhamdulilah sëriñ Sang bu ñu ngi sant yàlla bu baax mhm. euh, di wax ne alhamdulilah doomi sénégalais yàlla ngi leen defal euh, tawfiix si liggéey bi dafa am benn waay boo xam ne daf ma yàgg ak commande bi waxoon na ma danaa la jox avance ba barki démb la door a jógee ne dafa jiitu si pour màggal si Touba. ah est-ce que jaaru si bi la jaaru bi la jël si. Mm-hmm. te it sony bu dafa am lu dàq milliard mooy jëflante ak nit mu pare oo la téléphone ne la alhamdulilahi rabbil alamin li nga ma waxoon gis naa ko. loolu moo dàq milliard. Mm-hmm. léegoo léegi nga jël nit oo la ne la diw sàngam dafa am ku ma boole ak yow. Mm-hmm. ne ne dafa nekkoon situation nga génne ko si dama bëgg fi nga jaar ak moom nga jaar li ñuy ñaan daal mooy képp ko xaajom nar a faju foo mën a nekk yaa nga xam Sénégal nga nekk wala Gambie gi a mm-hmm. yal na yàlla teg sa loxo ñu jëflante bu dee bitim réew deux personnes la jël sa tur sa tur yaay année bi nga judd mm-hmm. lu ñu yàlla xamal ci daañu la ko wax bu dee si biir réew mi nga nekk jox ma sa tur sa tur yaay année bi nga jur soin bi bis yëpp la liggéey ba mu des vendredi heure bii 10 heures si suba la ñu ubbi di rasoir yi day continuer képp ku ñu oo téléphone nag jotoo ñu téléphone nag ñu bàyyil message heure mooy liggéey bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah bi moom lépp luy jàngoro xaaju aaju si émorite ak ndoxu siti da koy raxas ba mu set hmm. amul benn werante moom nag fajut kàttan Mm-hmm. waaye day faj ndoxu siti hémorroïde ak ballonnement ak lépp loo xam ne jàngoroy biir la rek insha allahu taala lavage bi da koy dindi ah wala yow moo xam ne mënoo dem toilette di toog ay fan doo dem toilette mm-hmm. boo ko jëlee balaa ñaari fan sa biir bi tekkee ko ngay dem toilette comme ni nga ko bëggee woon mm-hmm. li mooy lavage bismillah ah mais am na ñoo xam ne sax asan seenuk euh, hémorroïde euh, bu wéree rek ñu am kàttan ah. waaw dafa am yoo xam ne gàllankoor yoo xam ne bu dee hémorroïde indil faiblesse am teel a tere la sëy

am na solo itamit sant ko gërëm ko Assane ci euh, sutura beeg doxeenu liggéey bi mm-hmm. ndax bari na ay kilifa yu koy rencontré waaye ña fay ñëw ci moom ñu siiw ña ku ci photo wut ak moom publier ko mm-hmm. ñun duñu wax ni diw ñëw na euh, mm-hmm. ku ko seet bu dee ku siiw bu ko ko wala mu estaté ko duñ ko ah. xam ah, waaw dañuy wax mukk ni diw ñëwoon na ko diw kay koy waxaat waaye doo ko wax waaw te yooyu moom bu la ngay jaamu yàlla sax ba set nga ne ko Assane damaa faraanoo kurus yàlla gedd na ndeysaan moo tax lu muy def nit lépp lu muy dund rek ne ko bàyyi digganteem ak boromam tabarkalla mooy dëgg yàlla dafa bëgg sutura ba indil ñu guddeeg bëccëg mhm. am na lu mu si namm tabarkalla ñu yàlla jërëjëf ay numéro mi ngi noonu 77 571 87 63 wala 78 469 92 92 Baye Assane Mesre ci nga koy jotee moom El Hadj euh, Sëñ Abdou Aziz Diaw. Euh, boo ñëwee ba ci rond bi nga xam ne mooy rond point bu am lu mboq li. Mm-hmm. Mm-hmm. booy dugg Thiès rek mi ngi foofu noonu bu da ngay jëm ci itam péage bi moom ngay mujjee jot nga ñëw jàdd ci raaraan boobu nga woo ko foofu. Mm-hmm. acca ñu dem ci euh, Bayrab Lammeñ. Bayrab Lammeñ Serigne Abdoul Aziz Diaw mooy lan. mu am mu am. comme ni bayre jëmu amee hmm. am na ñoo xam ne yàlla defal na leen bayre seen jëmm yi hmm. boo leen gisee doo am si ñoom sago hmm. am na ñoo xam ne yàlla defal na leen la ngeen leen naw noonu la ko yàlla defee nag bayra làmmiñ am na ñoo xam ne boo déggee seen làmmiñ bi rek nga leen nangul mënoo si dara euh, yàlla defaloon na xabul googu alaaji abdou aziz dabaax radiallahu taala anhu bu jàng na alquran nga fa ne yonent yàlla daawda moo del si waat kon euh, sooy bu comme que nit ñi si jamonoy wax lañ toll dañoo war a suukar seen làmmiñ bi dafa am benn euh, góor gu amoon doom yóbbu ko ci réewu naar yi mu dem jàngi ba fees dell ak xam-xam euh, ngir walla xabul du fi caaxaan mooy boo waxee nit ñi nangu la loolu beneen beneen dimension la góor gi yebal doom mu dem jàngi ci réewu tubaab bi ba fees dell ak xam-xam doom ji ñib si di julli ci ginnaaw baayam waaye gis na ne baayam buy julli xutbaam sax taxu ko am solo waaye nit ñi duñ mën a tee seen bopp dañuy àllu rek mm-hmm. benn jour ji feebar waa dëkk bi ne ko ah sa doom ji bëri na xam-xam nañ bàyyi sa doom ji mu jiituñu mm-hmm. doom ji ñëw comme ni koy gaa yi def arabisants yi def rek di indi xutba si arab hadis bu ne mu teg aaye bu ne mu teg nit ñi di nelaw rek mm-hmm. hadis bu ne mu indi aaye bu ne mu indi moo gën a daq moo ëpp bàyyi bàyyi ci xam-xam nit ñi di nelaw di gëmmentu rek loolu day dal conférence yu bari am ñoo xam fu ñu conférence nit ñi dañuy nelaw rek mm-hmm. ah ajuma gi del si bàyyi ji tane del si waa si jumaa ji yegg si kaw minbar bi imaam nodd mu alhamdulilah maa ngi sant yàlla bu ma tegoon feebar mu may ma jabar ju baax mu toggal ma ginaar ma lekk bay bëgg a dee dellusiwaat si min ba rek nit ñi commencé yuuxu doom ji door a ñëw sa gannaaw baay mi ne ko wax ma lan la waaye léegi xet ba kere baay ji door ko jox secret bi moo tax làmmiñ dañ ko war a def mu am xabul boo ko tuddee nit ñi déglu la mhm. soxi bu lépp ñu dem seetu ko si alquran yàlla wax ne qul illahuma malikal mulk tuuti mulka man wa tanziul nga bind tamtakata jaysun Muhammad daalun waaye doo bind Muhammad daalun da ngay bind tamtakata jaysun Muhammad alun nga bind ko vingt 21 fois nga dem uti juróom-ñaari euh, xobi garab yoo xam ne dañ koy lekk moo xam banaana mango mandari ak nangam na nekk xobi garab yoo xam ne dañ koy lekk nga uti juróom-ñaari xob mhm. nga def ko saafara mu am benn cuuraay bu muy ànd ak loolu la daan mag ñi tuddee ga ko heure boo waree dem programme nga ŋasa gémmiñ gi suuroo ko mhm. booy kàddu nit ñi duñu am sago si yow gis nga lii boo bëggoon jigéen sax mu jafe la boo ko suuroo boo ko waxee li nga ko wax da koy def boo nekkee sa euh, sa sa di di liggéey barab euh, nga liggéey li ngay liggéey sa patron nga def lii boo suuroo sa kaddu ak sa kaddu patron dañuy déggoo loo ko wax da koy def ala kulli haalin mm. boo nekkee conférencier tamit di def lii insha allahu taala yàlla dalay may bayrab làmmiñ boo waxee rek nit ñi dañuy xalaf-xalaf yi duñu mën a seen bopp mm. nga nekk imaam war a yëg sa jumaa ja war a xutba nit ñi di nelaw mm. demal jëfandikoo alquran li yàlla jël siru nguur def ko sa làmmiñ ba loo wax nit ñi nit ñi jëriñoo ko war a sooy bu nit ñi dañoo war Mhm. bayre dafa bëri façon am na bayre yoo xam ne bayrab jëmm la am na ñoo xam ne ku leen gis bëgg leen mhm. yàlla nag defal na Ousmane Sonko ñaari bayra mhm. mooy bayrab jëmm bayrab làmmiñ Ousmane Sonko buy wax te gisoo ko si nga koy gën a bëgg si boo ko gisee boo tàggee na bët ni gi ko sans wax sax da koy bëgg xalaa kulli xaalin kon hmm. bayra ni mu amee si jëmm noonu la amee si làmmiñ moo tax Assane ni woon maire yi bu leen ko déglu waaw ni hmm. euh, parti bi àndul bu ko déglu ndax bu ko déglu dëgg xam ne yàlla moo leen mooñee loolu loolu nag du lu nit mën a sangoo wala loo xam ne sëriñ la koy defal hmm. loolu may ak yàlla la dafa am xalaa kulli yàlla seekal at bu ne yàlla jëmm ji muy fanaan ji muy feeñal mu nekk kéemaanu jamono yàlla dasee boole jëmi Ousmane Sonko kon loolu du bayra loolu la nee lan taxuma taxuma jóg waaye soxna bu bayra bi képp ku koy jëfandikoo boo waxee nit ñi dañ la déglu sa wax nit ñi dañ koy def loo wax mu am koo jëflante xolam sedd xataa boo doon bëgg jigéen mu jëfandiku mu jafe la sax booy suuroo lii sa gémmiñ gi loo wax ndaw si da koy def oh. booy liggéey ak sa patron loo ko wax da koy def boo nekkee si koo xam ne nitu public ngay musique wala lu mën a doon nga ko jëfandikoo mm-hmm. insha allahu taala ñu lay déglu dootuñ mën a téye seen bopp mm-hmm. am na leneen lu tuse bu dee waykat li ngay way day neex nit akum amul benn werante sooy bu mm-hmm. am na ñoo xam ne teg sa way may mën nañ ko mën nañoo taalif lu set wecc waaye bu ñu koy way nit am na ñoo xam ne xamuñ dara dañuy ngelaw ngelaw rek nit ñi di yuuxu mm-hmm. moo tax am na loo xam ne si làmmiñ la nekk képp ku ko yàlla mën defal nga am tawfiix li ma tudd bayrab bi képp ku nekk si àdduna war nga ko mën jëfandikoo mm-hmm. moo xam nga nekk si réewu tubaab bi wala nga nekk si réewu sénégalais wala foo mën a nekk rek alaa kulli alim bayre bi soxla nga ko mm-hmm. yàlla defal la tawfiix mag ñi lii lañ tuddee galaxndiku heure bu imaam daan jumaa ji di xutba jumaa ja kenn du nelaw xalaatu mhm. yàlla moo tax nañu uti xam-xam am na ko ci tudd nag moom bu ko jox Assane ndax mm. léeg-léeg di tëjoog saa ci bureau ba mm. saa nee na ma day ñu ñetteel ndax mm. Assane day ñëw fii lu ne mu laaj ma ko uh-huh. waaw nee na ma day ñu ñetteel ndax di ma uh-huh. protéger ndax Assane mi ay mbiram wóorut xam nga ah, man man kat jëru <laughs> ah, ñu jox ma kay li def loolu <laughs> non wóor nee na ma nee na ma Assane débat dañu ci bureau bi il faut nga ñu ñetteel seen seen ànd bi man su ma àggee ma ne ko ëllëg mu jox sallallahu ah, waaw lu lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne <laughs> ah. sa ngëm yàlla du mat mukk lu dul li nga bëggal sa bopp da nga ko bëggal sa morom seen ànd bi loolu la ko yàlla defe ku si ne sa jëmm moo ko gënal sa morom gi <laughs> moo tax foofu a boo déggee affaire di dugg kaay insha allah insha <laughs> mi ngi noonu loolu mooy bay rep uh, làmmeñ muy lu am solo nag ndax jërëjëf uh, làmmeñ moom ki ciy wax mm-hmm. bëgg na lu mu wax ñu dégg ko kon uh, lu am solo la mm-hmm. xam nga fi mu doon tey ku mel ni mm-hmm. gis leen bul am si ñoom sago xam nga yonent yàlla yusufa yàlla bay jëmm la ko gisoon da ko defoon na ko jàkkaarloog moom ne a ko yàlla jox xabul ak làmmiñ moom bu daan waay jàng alxuraan sax picc dañuy daanu waxuma laa doomu aadama yi macha allah jërëjëf kon mi ngi noonu kon Assane loolu lañ doon ubbee ñu teg ci li nga xam ne nag mooy ginaaru pettaaw mm-hmm. man moom fu ma ko fekk lekk ko waaw lekk nga lu baax. saf na de <laughs> waaw ginaaru pittaaw sëriñ Abdou bu góor bi nga si bëgg wala bu jigéen bi. bu mu mën a doon rek. kon lan mooy saaf lan mooy njëriñam. xalal ju bari. amul weeram añ bu la neex. Ah, du nekk ñaari fan du nekk ñetti fan. Hmm. togg ko ak secret bi muy ànd ak. sooy bu. Mhm. Isa waqaati aay bu saar bu riis la si alquran. Isa waqaatil waaqia. mag ñi am na secret bu ñuy liggéey boo bëggee taal nit si alal. wala nga bëgg nit am naataange wala nga nit bëgg yàlla defal ko tawfiix da ngay bind isaa waqaati ñetti yoon ay xéewal yu si yàlla tudd si alquran boo ñëwee da nga koy baamta ab lim duñ ko wax fii si émission bi waaye boo bindee isaa waqaati ba si xaafidatur rafia nga baamtu ko ab lim nga ñëw ba si fii jannaati naxiim nga baamtu ko ab lim wa kahzin min mahin nga baamtu ko ab lim wa faakihatin kasira nga baamtu ko ab lim laa maqtuatin wala mamnuha nga baamtu ko ab lim mm. wa furusin marfuha nga baamtu ko ab lim li ashaabil yamin nga baamtu ko ab lim fi samumin wa xamim nga baamtu ko ab lim wa zillin min yaxmum nga baamtu ko am lim laa ba innaa la moo muhramuna nga baamtu ko am ab lim farawun wa rayxaanun nga baamtu ko am lim wa jannatu naxim nga baamtu ko ab lim mm. sooy bu secret bi boo ko bindee ba pare mm. da ngay ut uh, ginaar gu pettaaw moo xam muy ginaar gu góor wala ganaar gu jigéen nga ray ko boo ko rayee ba pare fekk xooj nga saafara bi appart bi nga doon bind isaa waxaati bi bu ñu la suqilee ginaar gi ba mu set sa jabar mën na la koo suqil defaral la ko ba mu set nga jël saafara bi nga doon bi nga bindoon noonu ba pare moom lay toggee ginaar gi sa soxna mën na la koo toggal mën nga see def xeetu caf-caf yépp nag ba mën koo lekk soo du weex daal du weex waaw déedéet mën nga see def xeetu saf-saf yépp ba mën koo lekk nga fexe nag lekk ginaar gi ba mu jeex yow kenn maanaam boo ko lekkee añee añee ko jeexut bu reeree nga mottali ko léegi nag saafara bi nga doon toggee ganaar gi da koy xaaj ñaari xaaj benn bi nga def ko si séew bu mag boo lekkee ginaar gi ba mu des ñeex bi da naan si ñeex bi tuuti li si des nga sotti ko si saafara bi sooy bu mm-hmm. boo ko sangoo juróom-ñaari fan mm-hmm. heure boo sangoo nag jour alxemes altine dafa am heure boo xam ne si ngay jàng saa waa waaqia benn yoon mm-hmm. bu dee mënoo ko def dañ la koy defal sooy bu moo tax alquran dafa yéeme man mënuma gëm nit ku ak xam alquran di ko maîtriser di ko jëfandikoo guddi ak bëccëg nga sax si am soxla mën ta fa jóg Mhm. man gawma loolu ah alquran di waxu yàlla mhm. yàlla mooy kàddoom si alquran boo bëggee wax ak yàlla demal jàngi alquran yaa ngi wax ak sa borom mhm. yow nga sax suk suur am problème mënoo koo faj tey jàng alquran am na lu xew yéeféer yi sax nga xamante ne dañuy jat gëmuñ alquran dañuy jàqatu si gannaaw ngi gisee danaan saalaale muhammad tudd yontu yàlla muhammad yàlla rus leen liñ bëgg yàlla def ko yow chaque jour ngay bàkk yàlla guddi ak bëccëg ngay am soxla mën ta fa jox kon seetaatal la xew sooy bu saafara bi képp ko ko togg euh, sangoo ko juróom-ñaari fan naan si ñeex mi jël saafara bi di ko sangoo hmm. wallahi wal quraan yàlla muy wërsëgal ginaar xam nga ginaar amul fenn fu mu jëlee tiraanga ah. waaye boo xëyee da nga ko génne ngune gi mu dem wëti ah. te balaa tër si dana lekk ba suur ba jox juy joxam ba mu fees bu guddee mu mën ko mu mu mën ko remplir hmm. kon sony bu képp ko jëfandikoo lii yàlla ubbi la sony bu ñu bëggee yàlla dañuy defal tawfiq àdduna ak àllaaxira ñu am dignité hmm. di am soxla di muy faju te duñ dem si président di am soxla muy faju te duñ dem si buntu kilifa yi di am soxla muy faju te duñ dem si buntu benn directeur nañ sax si alquran yàlla defal ñu tawfiq isa waqaatil waaqia képp ku xam aay bi di ko jëfandikoo buntu ñàkk day jeex si yow mm. yàlla defal la buntu koom ah. sama yàlla lu mu yor jaamee ko moom ah, alquran ji ngay wax de moom sëñ bi nee na huwa shifaa'un min kulli daa dëgg la ah, sëñ wax loolu loolu dëgg la bépp jàngoro laaxu mm. alquran mën na ko saafara mm. ba mu des jàngoro dee feebar dee rek amul faj moo amul saafara waaye lu dul feebaru dee rek alquran mën na ko wax yow yaa ngi jàng alquran sëkk si yàlla ne inna maa hmm. nga ne mënuma am dara yaa ngi jàng alquran yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala sawfa yuxtiika rabbuka fatarda hmm. yow nga ne mënuma am dara te sax si jàng alquran kon yaa ngi jàng alquran waaye jàngoo alquran hmm. alquran boo ko doon jàng te muy dëgg yàlla wala mbooti alquran moo tax sooy bu mag ñi lu ne def nañ ko si alquran mag ma nettali dafa am benn wëllu yàlla bu mu seeti woon fii si xëtëb kilifa gu mag si Sénégal mu ne kilifa gi ay nit ñëw ne ko kër ga da dara nekku fa mooy leen ah fii tamit dara nekku fi waaye nañ toqaar yàlla am tuuti am ñu ñëw ne ko sama soxna dafa feebar mu ne ko ah fii nekku nañ toqaar yàlla am tuuti am ku ñëw ne ko soxna sama soxna si dafa am doom dama war koo tuddal te yow rek laa fi yaakaar te yaay xalifa bi mu ne ko nañ toqaar yàlla ba ba kalaama yi bëree ba bëri boobu mi ngi toog sama kilifa Cheikh Mamadou Lamine Jim mu ne ko sëriñ Jim mu ne ko naam mu ne ko jox ma kaamil bi uh-huh. mu jox ko kaamil bi mu commencé wax ak moom góor yàlla googu tëralut juróom-ñaari ayis alquran këpp kaamil bi teg uh-huh. ba mu këppee kaamil bi teg am di am am am ab góor yàlla gu baax ku fa ñëw indi ay kees sëñ Jim nee na ba mu xoolee kees bi sax dafa foog ne ay keesu ataaya la yu ko nuru ndeke waa ji ay million la pakate ñoo jox ko wàllu yàlla boobu mu yëkkati ñetti million jox ko Cheikh Mouhamadou Lamine Diop ñoon ñoo xam bara daraja alquran sooy bu loolu da ngay def léegi-léegi jooni joon li nga bëgg nga def ko nga gis ko xoolal kii soxla yëfa ñi ko jaami fa tawatoon yépp faj na ko te si ah. la ko fajee yow nga sax si téere alquran bi ba nga juddoo ba ni ngay bee jaawee mënoo am dara wax dëgg yàlla mën koo mu loolu nañ dem gëstuwaat mboori mbooti alquran di ko jëfandikoo pour yàlla mën ñu defal tawfiix loolu mooy dëgg saa waqaatil waaqe képp ku koy liggéey mënoo ñàkk xaalis macha allah mi ngi noonu Serigne Abdoul Aziz Diaw ay numéro mi ngi noonu 77 571 87 63 wala 78 469 92 92 kattan. ñu dugg ci. Serigne Abdoul Aziz ah, di si sant yàlla bu baax si ñiñ koy jox. Hmm. yàlla di leen si defal sutura. xam nga soxna bu leen rek amay feebar. waaw nit am si yow yaakaar. Hmm. wala téléphone ne la sëñ Abdou dem naa fu ne jëfandikoo naa li ma bëgg mënuma ko am. Hmm. mooy jox ko mbir. man du ma ñalal fii ak oo ma ne ma alhamdulilahi rabbil alamin dafa mel ni xalu safara si laa toog moo tax alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax a baax léegoo léegi nit am soxla ne ma man damaa am soxla waaye mënuma koo jël ma la kaay ma jox la garab nga jëfandikoo ko nangam ak nangam sooy bu nit ñi nag mag ñi bu njëkk dañoo amoon yitte jabar bu ñu la ko joxee bala ngaa ànd ak moom am na yeneen yoo koy waajaale ndax comme que faru rab yi chaque jour nit ñaa ngi bu lay mënee rey da lay rey moo tax nañ si bala ñoo dem si suñu soxna yi nañuy préparé suñu bopp sidna Aliyun bañ ko joxee Faatimatu hmm. mënoon na ñëw seetu su guddi boobu waaye sa yaara lañ dal ku ne hmm. def say affaire hmm. door a ñaan yàlla bëgg yàlla may leen doom yoo xam ne àddina waaye nit ñi taluñ loolu bu ñu la mayee soxna sax tey la nga julli ñaar rakka sax pour ñaan yàlla barkeel sa say du noonu yaakamti baaxut loo xam ne yaakam yéen a jëm à kon nañ si tey bu baax sooy bu garab kàttat gi képp ku ko jël waxuma nga tële nag boo tëlee mënu si yow dara waaye da nga am faiblesse sa awra day day day nooy wala day dug waaye du dëgër wala day jug day gaaw wàcc incha allahu taala boo lekkee ba suur jël si kaasu ataaya li nga bëgg da nga ko am 100 pour cent amul benn werante bu dee nag da nga moom awra bu mënta jug moom mënu koo faj nga dem uti garab pour yàlla defal la tawfiix mm-hmm. waaye faiblesse daal bu mu bu la mën a téye rek moo xam awra bu néew awra buy gaaw wàcc awra bu du dëgër awla buy nooy awla buy dellu bu mu si mën a doon boo ko jëlee yàlla defal la si sutura mm-hmm. moo tax góor góore ku amul ndigg rek góor nga ku amul ndigg rek doo góor ak koo mën a doon nag mm-hmm. incha allah li mooy garab kàttan képp ku si jël ku ko jël yàlla defal mm-hmm. mi ngi noonu kon yéen ñi ko soxla man ngeen koo woo euh, lu jëm ci wàllu cité ak hémorroïde yëpp lu ci nekk daal soo ko wooyee nga ni ko sëriñ bi lii laa bëgg moom bu ci amee xam-xam dana la wax ni la maa ngi ci bu fekkee yoru seeti keneen. incha allah ca dara numéro yaa ngi noonu 77 569 80 63. wala 78 469 92 92 dem ci li nga xam ni euh, mooy. dëgg ak fen walla mhm. mm, ci noonu la ñuy dem sax doog a ñëw ci actualité yi ñu war a mhm. waxtaanee mhm. Euh, ñëwaale ci information xabaar bi nga xam ne ñu ngi koy gis ci ngoon ba léegi wal fajiri ñetti gone jigéen yi nga xam ne ña nga foon ah, te nekkoon ay ay ay birig ay kenn kan la ci am na ku fi ñëw waaw ñu wàcc waaw ñooñu jóge nañ ci wal dinañu woo yaakaar dafa dafa fort waaw ku makki d' accord loolu dinañ ci ñëw incha allah muy actualité bi ak Ousmane Sonko ak euh, transport bi balaa loolu dëgg ak fen Serigne Abdou dëgg ak fen ban moo si man fenal léegi fenal léegi ah. am alal léegi ah voilà nekkal si dëgg <laughs> sonn bay bëgg dee ah, xam nga ni <laughs> ñaari jëmm yooyu sooy bu <laughs> dañoo àndoon di tukki mm-hmm. fen ak dëgg mm-hmm. fen wax dëgg ne ko yow de yaay kilifa jiitul ma topp sa kaw. ñuy dox dox dox ba ba set. ndekki jot fekk dëgg jiitu. dëgg moom du fen dëgg rek lay wax. dëgg dugg ci restaurant bi restaurant bi ne ko de xewlu lañ bëgg mu ne ko yor ngeen xaalis mu ne ko yoruñ dara mu ne ko mayewuñ sarexewuñ dëgg moo wax yoruñ dara. waaw ñu continuer hmm. ànd ak xiif. Hmm. doxati doxati doxati ba añ jot fekk dëgg jiitu feneen si ginnaaw mm. ñu tàbbiwaat si beneen restaurant dëgg téye pot bi mm. dem si borom resto bi mm-hmm. ne ko ñun de añ lañ bëgg mu ne ko koppar mu ne ko amuñ koppar mm-hmm. mu ne ko mayuñu serexewuñ mm-hmm. xanaa fande nañ njëkki fande añ ñu kontine ba reer jot dëggati dugg ti beneen restaurant feneen topp si ginnaaw laajati xéwal gars yi ñu ne ko mayewuñ serexewuñ fen na ko hey yow bu ma la toppee léegi ñu fande te xiif danañu rey comme que yaa jiitu si suba ba tey mënuñoo mënoo am dara hmm. toppal sama ginnaaw léegi tey nga lekk ba suuf ah fen ne ko dëgg ne ko hmm. fu ñuy lekkee loolu dana ma jaaxal yow amu xaalis amu xaalis nga ne ma danañ lekk ba suur hmm. xaaral ma topp sa ginnaaw léegi fen jiitu dëgg topp si ginnaaw fen dugg si benn réseau bu riis ànd ak dëgg oo bu kuy servir ne ko indil ñu ñaari palaa mu indil ñaari palaa dëgg indil pala dëgg indil pala fen dëgg lekk ba suur <laughs> fen lekk ba suur léegi nag dëgg ngi toog am problème ne ñun amuñ xaalis te waa ji lu tax mu oote léegi loolu doyut mun a indil ñu si naan yi comme boo lekkee si restaurant yi ba pare rek <laughs> indi ma yu sedd ñu naan kenn du moom ñu indi yu sedd ñu naan rek lekk nañ ba suur naan nañ ba bàndi mm. léegi nag dëgg mi ngi am problème waa ji nan la war a def ndax leer na ko bu ñu dugg si réseau bi amuñ dara. te yoruñ dara yoruñ dara. Hmm. ah fenn moo tax sëñ bi nit ñi fenn gaaw na may teraanga. Hmm. ñu lekk ba suur naan seen yu sedd ba sedd fenn def direct si bonum contrat bi mooy kuy borom si gise bi ne ko delloo mu sama weccat. ah borom gëstoo bi ne ko des mu ne xaalis bu bees bu mu xoñu. delloo mu weccat bi waa ji ubbi contrat xam nga boo gisee yu mag yi. heure boo demee da nga fa fekk xaalis bu beex bu mu bu mu xoñu. léegi mu xëcc contrat bi gis fa xaalis bu bees bu ñu ma xooñ ma ko wax nga dëgg de delloo leen ñu dem <laughs> léegi bañ génnee ba si restaurant bi dëgg xam na ne lii fen la te bu ko ak waññee ko annoncé ko danañ ko jàpp jàppaale ko waaw mu continué ànd ak moom uh-huh. léegi moom dëgg gëm nekkoon fen soppil na ko ko uh-huh. ba muy dund commencé dund fen foog ne mu fenee dëgg uh-huh. sooy bi nga toog image boobu image na sénégalais waaw da nga koo xamante ni day jël benn photo nii rek envoyé ko nit ne ko diw sàngam sama xarit la waaw dóor ko si fenam ba am fa teraanga. sooy ba ñaata nit nga gis ñu tëdd seen milliard liggéeyuñ dara si fen rek si ne jaay ba am teraanga gis nga yoonu dëgg boo fi nekkee fin na bu ne ak yoonu bu ne da nga fa dugg doo gis résultat waaye boo jaaree si yoonu fen diir bu gàtt rek nga tëdd si ay milliards Sénégal ñaata nit dafa tëdd si ay milliards ma ne pour dëgg la ñun ñii rek def nañ ñu ko mm-hmm. benn xale bu góor bëggoon takk xale bu jigéen mm-hmm. daa ah, gis nga bi nga ma ne boobu si la nit ñi toll moo tax euh, fene léegi am ay milliards nekkal si dëkk tumuraanke lool pour nga gis teraanga dana jafe loolu am na benn wëllëram boo xamante ni bu laa nax nit bu na directeur seet si ku mën a doon si li nga bëgg rek si la lay nax mhm. bu lay jub rek day gaaw abu si jaada jàpp julli nga bëgg ko lool ngir diine fekk dóor na la <laughs> mm. si julli gum julli nga jàpp ko ne kii ku dëggu la mm. fekk nag alhamdulilah bu la wanee ginnaaw rek def la musiba kon sooy bu euh, euh, bëri nañ ñoo xamante ne ñu ngi tëdd si ay milliards fana leen ko may hmm. waaye dëggu mayu leen ko kon daal dëgg même bu ànd ak fen na fexe bu ko fen yóbbaale amul benn werante kii gis nga affaire bi immédiatement euh, automatiquement xëy nañ dox ba ngoon jot amul lu ñu lekk hmm. Hmm. kii 30 minutes mu créel ko mu lekk ba suur naan bu maa ñaata nit a tëdd si ay milliards moo tax amin am jafewut waaye amin moo jafe amin moo jafe waaye am jafewut baraka sooy bu eh. nañ delluwaat si dëggu tabarkalla ba bu ñu fen yóbbu macha allah gis nga kii lu mu doon dëgg-dëgg fen bi yóbbaale na ko macha allah incha allah nañ bàyyi xel ci loolu bu baax mi ngi noonu defal ñu ngi noonu dëgg jooju la àndee ak moom ndax mm. gaañe bañ ñëwee mm. ñaan ñu sonko dani <laughs> ñaanuma ci su may ñaanal sonko di jël xaalis bi day fekk ñu ma xam lañ alhamdulilah ne am ngeen yéene bëgg ngeen sonko mu génn ci kaso bi doxewu noonu tabaarakallah ba ñu encaissé mm. gaa yi da ngay ñu ñaanal sonko mu génn naa ko génn li ngeen bëgg laa bëgg xam nga doomu aadama bu dee ñëpp dañoo yuuxu nga ànd si yuuxu yi mm-hmm. moo tax ñëpp ñu daan fene turu Ousmane Sonko mm-hmm. guddi ñu toll ñu si jafe-jafe sëñ bi lu du dëgg rek du yàgg waaw képp ku daan dundee turu Ousmane Sonko da nga fay képp ku ànd mm-hmm. ak ñu ñàkk laa fal ñoo si bokk yem yow bëggee woon pour mu fal la yàllaa taxoon nga bëgg ko continuer si yàlla jóg di fa jóg waaye ne bu dee da ànd goon Ousmane Sonko pour loo macha allah jërëjëf dégg naa Assane mu wax baat boo xam ne bëgg naa mu gëstu ma ci fii ak euh, bii di ñëwaat. incha allah mu waxtaanaan ci damaa dégg léegi mu ni lu dul dëgg du yàgg. waaw mm-hmm. dëgg la déggaat olof mun na lu yàgg dëgg la. Mm-hmm. Mm-hmm. lu am solo la. léegi nag sëñ bi bu ñu ñëwaatee. jërëjëf jërëjëf waxtaan ma ci diggante lu yàgg dëgg la. waaw ak lu dul dëgg du yàgg. alhamdulilah lu leer a ngi noonu. incha allah xam nga. Ah, waaw baax na baax na incha allah assan kon ñu diglu ci actualité yi suñu naataango yi ñu jàkkaar lool ci Walfadjri ñu ni daal euh, jot euh, daal xabaar boo xam ni yow yaa ngi koy wax démb nee nga kenn ki ñëwoon na doon ñu tàggu mm-hmm. muy Ibrahima Salma euh, Fall ak ki nga xam ne mooy Awa Diop Ndiaye ak madam Diop muy soxna Moustapha Diop mm-hmm. ñu ni quitté nañu wal Walfadjri loolu ab jàngal la ci quitté yi mbaadu ay li xewoon la fan yi li ñuy dégg wala lu xew loolu sëñ bi na ci ñëw ak jàngatam ñaareel bi mooy Ousmane Sonko nee na accident yi daal néew ñu dootu fi amati waaye ku ko fi defati dina am enquête te dina ay sanction waaw. ma siy sax. boole leen rek. acca sëriñ Abdul Aziz Diaw xam naa ne Awa Diop moom il faut mu defal ko ay ñaan. waaw ah, waaw il faut nga defal ko ay ñaan bu baax a baax a baax ndax moom. ko fonk réew mi la. Mhm. te yaakaar naa ne ñëpp xamoon nañ digganteem ak El Hadj Sidi Lamine Niass na yàlla yokk leeram waaw taxawaay bi nga xamante ni amee woon na ko si Walfadjri fa mu ko mhm. fekk ba fi mu ko indi. Mhm. muy lu rëy loo xamante ni def na ko fa. jamono ji sax eh, jëloon na fi conseil. conseil bu ndaw ñëwaat. bu mu ñaatee mën naa ne da doon tàggu tàggatu si. waaw. loolu nag xaj na ay jàngat la yoo xamante ni am na sàng la laa yëg ni sax ñii mais bi mu amee la bi mu tàggoo Walfadjri démb ba pare ñëw ne fii tàggu leen mhm. mais dafa fekk ngeen wàcc waaw ay nitam ñëpp ñim si mën a tàggu tàggu na leen xamal leen kat lii moo ñu boole woon waaye nag damay changé doxalin rek mm-hmm. mais man ak yéen moom dee rek moo ñu mën a xaajale ñëw na ba egsi fii wax dëgg yàlla wax wax ju rafet Euh, noo gisee loolu yi nga xamante ni am na fii si Walfadjri ginnaaw leet Cheikh Niass waxoon na ni ku bëgg a bokk si Walfadjri yow bu la neexee. Mm-hmm. ubbi nañ bunt yi. Mm-hmm. yow mën ngaa dem bokk sa yow jël sa xaalis dugal ko ca Walfadjri. pour mm-hmm. nga mën a bokk si Walf. ndax crise boo xamante ni xaj na ñu ngi koy xaw a dund. Euh, foofu si Walf boo noppee nga daa dem si Ousmane Sonko. waaw accident yu bari yi li koy waral. oto yu baaxul ba pare ñu ngi romb ay takk der. ñu ngi wut am euh, visite technique. ñu ngi am lépp ba pare fu ñu jógee ñu ne oto ba pneu xanaa kon kenn nekkut si tëli bi waaw xam naa doomu aadama ak ku mën a doon mhm. ànd boo gis mhm. si tàqalikoo la jëm mhm. ànd jëkkër ak jabar ànd ndey ak doom ànd sëriñ daara ak taalibeem da nekk barab jàng fa ut fa xam-xam ñaar fukki at ba sëriñ bi foog ne kii sama doom la dootu fi jógeeti bis dara ñëw ngeen tàggoo kon yàlla bindut benn doomu aadama barab sàngam nekk fii fii mooy sa tiraanga boo fa jógee mënatoo am tiraanga mm-hmm. mënatoo di nekk dëgg la waaye nit ñi luy problème dañ dut sàmm seen kóllëre baay mm-hmm. sàmm sa kóllëre baay dafa am solo mm-hmm. te lu mën a xettali doomu aadama la nit nag barab boo nekk am fa tur am fa tiraanga sa wërsëg fa nekk rek bu wërsëg bi jeexee rek nga jógee fa ak xalaa kulli xaleen boo fa jógee wut nii jógee fa neex mhm. gis nga euh, Issa Dia ajaloom laa yastaqiruna saata wala mhm. yastaqdimuna aw jom Ndiaye lu muy yàgg-yàgg wal fajëri mhm. yàlla dafa waxoon mois de août bi 2024 c'est les rendez-vous ak wal fajëri jeex xëy na ëllëg danañ ko soxlawaat mu dellusi waaye laa ren bi jeex na kon ne fu mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee yàlla na ko yàlla defal ay ay yokkute ak xéewal ak tawfiix waaye sooy bu euh, kilifaay entreprise yi nañ fonk seen ay employé di leen jox cër gis nga liggéey buy dund kuy dund dund rek bu nga yokkute gis nga salaire yi salaire yi deux mille dix neuf. bu ñu bëggee bàyyi xel di ko fay nit ñi deux mille vingt quatre. yow yaay yokk waaye ki say sa employé du yokk. Mhm. nit booy liggéey di jëm kanam ki ngay ànd ak ko yéene pour mu yokk. Mhm. loolu mooy jukkoy gor. waaye bu ngeen di dem yéen ñëpp na ànd dem waaye man maay dem keneen du dem. doodu mhm. jukkoy gor. mooy ba rob entreprise yi. nañuy bàyyi xel seen employé pour mën leen dimbale pour Sénégal jëm kanam. li tax nga wax ne am solo. Mm-hmm. man mi oto bi may dawal moo gën a seer bi saa njóog yi dawal. jërëjëf. <laughs> bison bi dawal moo gën a seer bi saa njóog di dawal. jërëjëf jërëjëf tey ay employé laa. Uh-huh. Mm-hmm. tey maanaam ñoom fañ teg seen tànk fa laa teg seen tànk. alhamdulilah tolluwaay bi ñu am laa am. Uh-huh. maanaam fi mu nekk nii nit ñi mu ma xool sax dama jéem a découragé. lenn lenn rek laa laa lay eh? ragalal tuuti. Hmm? mooy nga topp neexaayu oto bi. ah keroog lu <laughs> ëllëg musiba mën naa dal da nga bàyyi appel vidéo yi macha allahu taala keroog ba mu ooyee téléphone dama gars yi ma ci utal oto. dama ne dëgg rek kay dëgg. Oh. ànd daal bu ko yàlla rayee. Hmm. day ubbeeku. Ah. nga annoncé waat ma beneen mbir boo xamante ni mi ngi war a ñëw après nawet bi. Ah, nga xam ne yéene innamal ahmaal bi niyaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam oh. li nga bëggal sa bopp sa gëm yàlla du mën mukk lu ngay lu yéene sa li nga yéene sa la moo tax kanam konoon entreprise yëpp kanam la jëm waaw waaye nag nit ñi duñ gis da ngay gis tabaski jub si ñu ne ah ren de duñ mën duñ leen mën a jàppale si tabaski gi uh-huh. duñ leen mën a jox si seen xaalis mm-hmm. Mm-hmm. ndax tabaski gi ren xaalis amul mm-hmm. ñii nag moom ren dañ naan la fay lañ la dañ lay fay for force ba pare dañuy yëkkati xaalis jox la xam nga xam nga entreprise yi <laughs> weer day dee pour nga jot salaire problème lay doon waaw yéen yéen a ngi balaa yor PSD nga bëgg def emploi loolu sant yàlla ma la escrownance la escrownance emploi yi dañ koy dimbale lii la si cadre sant la gis nga entreprise solution TV hmm. entreprise yu mag yëpp bu ñu si tegoon bët seen duñ xuloog seen benn employé hmm. te loolu mooy dëgg lu baax dañ koy roy hmm. laqad kaana lakum fii rasulullah iswatun lu baax dañ koy roy kon nañu nañu roy yu baax yooyu euh, sëñ Ousmane tamit euh, Souhaïbou yàlla si la caaxaan jeex dëggu ñëw mm-hmm. yàlla ba ñu tànnalee ne aji dëggu ji di Ousmane mu fal ko si réew mi gis nga son bi li nga gis nii mm-hmm. départu état la waaye caaxaan yeeg tappale yëpp dana dañ ci réew mi mm-hmm. son bu yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba muy gàddee Màkka di jëm Madinatul Munawwar am na ñoo xam ne ay milliards lañ amoon am ay oto si misaal wala am ay gilem ay kër ba yàlla soxlaa yontu bi soxla dañoo gàddaay seen alal yooyu yow nga am oto bu am ngay bakk bakkani doomu aadama yi doo jël tey ko tey la ko feeraay yi te xaar yàlla mm-hmm. di lor doomu aadama yi guddi ak bëccëg naan nañ sañ bi bala ñoo defar tëli bi nañ defar jukko yi mm-hmm. defar xol yi pour Sénégal jëm kanam waaye Sénégal seen xol yi dafa doy waar bu ëpp euh, takk der yi nga xam ne ñu ngi nekk si pëli si euh, si kaw tëli bi tamit au lieu ñu xool oto yi. Mhm. waaye borom lu nekk si poche oto yi borom oto yi. Mhm. la ñuy xool waaye in oto yi intéressé wu leen. Mhm. te loolu musiba la sooy bu. képp ku bëgg Ousmane Sonko wala nga bëgg Bassirou Diomaye Faye te muy dëgg. li mu woote da nga si tegu. wala doo am jàmm si réew mi. jubal jubanti. ñëpp a siy tegu nag xalaa ku yàlla ku si tegu rek doo am a am jàmm. wala nga bokk si Ousmane Sonko wala bokkoo si moom. wala nga bokk si Bassirou Diomaye Faye wala bokkoo si ñoom gis nga dëgg xul jaal xaq wasaqal baatal dëgg ñëw Sénégal dañ ko war a lavage raxas saltale yi bon bon yi tilim tilim yu ñaaw yëpp nañ ko raxas mm-hmm. Sénégal delluwaat kanam te allah réew mu naat la ñu am mm-hmm. réew mu yàlla defal tawfiix lañ jëm nga sony bu nañ jël dëgg a daw buñ xaar sax état bi di leen ko si askan wi mooy dëgg mooy dëgg am na loo xam ne nañ ko def te buñ si xaar état dara nañ ko def li wajji lay taala pour ñu xool yàlla yàlla bu la bëggee dimbale da nga am benn néegu ñax mu lakk ko nga ne yàlla dafa maa bañ waaye booy tabaxaat doo tabaxaat ñax ah. moo tax ku si yor oto boo xam ne am na 40 ans donte sa maama ko moom jël ko sànni ah. xaar yàlla defal la tawfiq am na solo jërëjëf sëñ Abdou Aziz Diop mi ngi noonu tey moom lañ dalal ay numéro mi ngi noonu 77 571 87 63 wala 78 469 92 92 sëriñ Abdou xam nga Assane dafa baax di wax rek waaye mm-hmm. xam nga kilifa gu nekk na muy doxee mm-hmm. day seetlu njabootam ndax sa njaboot bu ñu bu ñu maanaam li ma sama mag ji doon wax naan ma gënal la ñaari jabar amut. Mm-hmm. nee na ku gën ci yow nga gën ci ah, moom mais boo seetloo solution ni ñu jàppee seen i emploi mm-hmm. dañoo gis seen taxawaay. ndax saa saa yu dexee defee ab jéego. Mm-hmm. ci payoor gi rek mooy gis na ni yokkutee ngi am. alhamdulilah bi ñu fi créé benn esquerce bi ñu doon def. mu gis ni esquerce fa muy dawkat ñooñu yokk nañ su lëf. ah Diop gaa yi de comme gaa yokk nañ su lëf. nañ yokk si lëf moo tax da ngeen yokku rek yooyu <laughs> mooy yokku rek gis nga jaami aadama joom jaami yàlla yi booy xëy si ñoom di gont si ñoom yàlla di xëy si yow di gont si yow te ku yàlla xëy si yow war a àdduna dëgg la moo tax sëñ bi da koy bàyyi xel mujj juddu gën a barke mm. fii rek la am dëgg la moo tax na si ñëpp bàyyi xel dëgg la insha allahu taala man ba may ñëwal fajar yi ñu ma ñuy liggéey mm. dañu ma ah lii daal laa am mm. ah. waaye bu yokkoo ma yokk ma ne ko nañ liggéey jërëjëf ma gis ni saa yu sponsor yu yokkoo dina ñëw ni ma am na ñu ñëw de xaaral ma yokk lii loolu nag la ñu àndee moo tax fi mu toll nii saa yi di tiitaru di dawal oto ba daf si gën a seer suñu oto yi di tiitaru xam nga moom fi mu toll nii ñàkk ñàkk ah, nekk kilifa mbëtt lañ te entreprise yi si ëpp na kilifa ak mbëtt lañ te kilifa ak mbëtt kenn mënta ànd ak moom ndeysaan waaw boo tolleekee moom mm. mu ne booy bi daf may diir mbagg ndeysaan boo desee si ginnaaw ngir ormaal ko mm. mu ne day dëgg sama geen ndeysaan boo ko jiitoo mu ne li may war a dundee la bëgg a for ndeysaan moo tax kooku mën kenn mënta ànd ak moom aywa moo tax sony bu baax dafa jafe am na jéem a baax waay gërëmaa gërëmaale Diouf Lambaay mi nga xam ne moom it euh, tabaarakàlla di ko wax ni hmm. ah, jox nañu wata muy dawal te ñu benn pression kon boog Diouf jërëjëf alhamdulilah ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm keroog ànd nañ fa mu naan <laughs> sëñ bi bi ab butéel la yor ah. bi kii ma gis nii ab butéel la neex na bàyyi li ngeen def indi waa ji ah, naan da ngeen koy laax am nga man keroog bañ duggee laa tëddi oto boo ne da ngay jël baa mi taanaay tëdd ni mu la neexee doo yëg dara na te consommation bariwul yàlla def na si ba joxoon nga ko numéro si yàb Diouf Lambaye. <laughs> ah nee na woon sëñ bi nur na ma borom butel bu neex la yor de bàyyi leen li ngeen def ma gisee nga xam ko. aywa sëñ bi looy tàggoo. kontaan si yéen bu baax di leen ñaanal yàlla defal leen tawfiix. Mm-hmm. di ñaan yàlla na màggal gi ñu jëgmal ñëpp bon route. Mm-hmm. seen accident. incha allah yàlla def tawfiix te ñëpp uyu borom Serigne Touba. Mm-hmm. pour yàlla defal ñu yokkute. gis nga doomu aadama yi. yàlla sofee na Sénégal. gis nga mag mu la oo ne kaay kaay kaay kaay te buntu bu gën si doomu fàttali yàlla kon bëgg nañu ñëpp sope kon na ñëpp dem wuuti wuyu ji woote bi mhm. pour yàlla defal ñu tawfiix dañu bàyyi caaxaani te dellu si yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu amin waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu bàyyi looy tàggoo xanaa sant ñëpp mhm. gërëm leen te ñaanal leen jàmm bu baax a baax a baax a baax tey mhm. kontaan si ñi ñuy bàyyi xel bu baax soxi bu jërëjëf Abdoulaye Diallo Serigne Fall Gumbala ak El Hadj Modou Diouf ak Abdou Top ñii ñoo nekk ci xarala gi gërëm Serigne Fall Gumbala euh, sketch maanaam sketch yi sax kii yi séquence di gis ci TikTok bi. moo koy dagg di ko yombal ñu ngi koy gërëm bu baax baax te di ko sant lii la ñu indi woon joxante ab dig ba àjjuma ci waxtu wi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.